li mu li mu wax léegi nii par rapport ak. matagul sax six mois. non c' est que en fait c' est que. changement de xoolal histoire au Sénégal. Mhm. de Senghor. à aujourd'hui chaque fois régime bu ñëw dañuy jàpp ni indépendance boobu ñuy wax de la justice wala euh, séparation des pouvoirs du am régime bu toog kilifa bu toog day am benn genre même pas mainmise mais yenn saa yi ñu jël ay act ci yoon nga jàpp ni dafa am ci ginnaaw euh, régime bu fa ne gis nga ba ba ñuy tëj euh, Blondin ak ñeneen ci ay jamono mais tëj nañ fi koo xamee dañ ko ne ni dañ ko accusé ba waxuma sax tëj mais première condamnation à mort euh, moom moo amoon mooy ku doon ku ñu wax ne da doon jéem a euh, faat bakkanu euh, président Senghor turam maa ngi koy jàpp léegi xaw ma dama faay. waaw Moustapha. Moustapha euh, Padio. bon ça va me revenir. loo mi ngi noonu loo. Ah, waaw donc. ñu ñu waaw ñu jàppee ko ci ak yeneen ak Blondin l'histoire est encore là ñu ne la ci Abdou Diouf ku ànduloon ak moom. fexe nañ dugal la ci kaso wut benn porox ndoll buñ la yóbbee ñu ne la ci maître Abdoulaye Wade ñu ànduloon ak moom doon opposant ci ay jamono dañ lay euh, tegal benn épée de Damoclès ne la da mën a ñëw transhumance boobu da ngay mën a ñëw wa ilaa ñu toppee la ci loo xamee ni dañuy xam ndax dëgg la walla dëgg Idrissa Seck en a fait les frais ñu ne chantier yu Thiès yi lii baarataal tëj nañ ko ci ay yoo xamee ni dañ naan tout parce que d'accordul ak lu lu lu benn régime doxee moo waral sax ba benn moment son engagement politique mu tuddee kuréelam yemale benn période juste parce que il n'en voulait plus de ce régime de maître Abdoulaye Wade ba mu ci paree déggatoo ko pare na ci mbirum politique defatul sax mbirum politique parce que boobu am na lu ko metti woon ba mu xeex ko Macky Sall mii jéem nañ ko jéemal nañ ko lu ne woo nañ ko fi ay yooni yoon te dikk Karim Wade woo Macky Sall mii bi fi nekkoon woo na ko woolu nañ ko ak ñeneen ci ay dignitaires yu ancien régime bu maître Abdoulaye Wade te lépp lan lañ ci gis yo loxoy justice te buñ nee justice du question juge bi magistrat yi wala mais euh, maanaam administra kii bi yëpp chaîne bi yëpp police la jaar gendarmerie dikk yooyu yooyu yëpp yi nga xamee ne dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy yoon donc ñu jàpp ni régime bu ñëw da ngay am benn loxo booy teg justice ñu ne lu ko waral mooy le procureur mi nga xam ne moom mooy di procureur de la république mu nekk diggante euh, li ñu naan exécutif ak judiciaire parce que moom moo féete ci ministère de la justice mais ñu wax la ni procureur donte féete na ministère de la justice mais liggéeyam ak ministère bi ci boppam c'est juste pour la bonne administration de la justice pas pour question wu defal lii jàppal di ak yu mel noonu j'ai suivi hier le le ministère de la justice sur euh, ci euh, RTS ci journalu 22 euh, bi mais kaddu bi mu wax ci lu jëm ci wàllu ay retour de parquet expliqué ne ni am na ñoo xamee ni seen i avocat seen bopp ñoom ñooy sàkku pour ñu fexe puusaat mbir mi bañ leen yóbbu directement ci euh, euh, camp pénal wala rëbës ñu mën a bénéficier wu ci retour de parquet yooyu pour defaraat ak am na sax ay médiation pénale ak yeneen ak yeneen yu war a am ça veut dire que tey li ñu bëgg mooy rupture boobu am que administration de la justice bi exécutif man cee am lenn lu mu ciy yëngutu loo xamee ni dafay indi jafe-jafe par rapport ak nit ñi perception bi ñuy am ci justice ndax perception bi ñuy am souvent du question juge bi de procureur la ñuy gën a joxoñ baaraamu tuuma ci lu bari procureur bi la njëkk wax ay agents judiciaires de l'État gis nañu coow li fi amoon ñu dem ba euh, CEDEAO ca cour de justice bu CEDEAO ñu ne lan mooy yoonu agent judiciaire de l'État ci coow lu am ci mbirum partie bi tas nañ ko tasuju ko fan la mujjee ci parti boobu ñu doon tas ñu naan tas nañu ko bay wax ex parti Pastef tey dañ ko delloo siwaat ci fu mu nekkoon rawatina ñu jël sax nguur jox ko ça veut dire que am na lu ci doon ñuul ci mbirum nañuy doxalee mbirub yoon loole nag la sénégalais yi ne ni ah attention il faut que loolu ñu joyanti ko ñu xoolaat ko que man justiciable ma am cawartewu dem tribunal wala dem ci koo xamee dafa yëngu ci wàllug yoon sans am ci benn arrière pensée parce que lan lay indi mooy tey Alamine tooñ na ma Ablaye Naar moom moo am tur ak sant moom moo xam magistrat nangam wala nangam mu fexe ba moom Alamine tooñ ba mu ma tooñ moom ndax euh, Ablaye am na ku mu xam tooñ boobu mujj sopparnu ko doon loo xamee ni dañ naan man maa tooñ xam nga fan lay mujjee ci réew yu bari dañ naan comme yoon amul je vais me faire moi-même justice te loolu moom mooy li gën a bon. tey su ma jàppee sama sàcc mu leer ma ni su ma ko yóbbee dañ koy tëj ndax sàcc ba mu sàcc du doon problème ma jàpp sama agresseur wala ñu jàpp sama agresseur ñu yóbbu ko mu leer ma ni kii ñu jàpp ni dootul agresseur de wala dina toog ay weeri weeri weer ci kaso bi ba xoolaat li mu defoon ndax baax na wala baaxul waaye nga jàpp sa sàcc tey wala sa agresseur wala kala sàcc tey dans une semaine nga romb ko mu euh, taal kii am nu ñu koy taal moto mu romb la. di la waraale daanaka dalay ñaawal nga naan kii kañ la génn. te chaque nga dégg moo bari loolu Birahim. nga naan kii kañ la génn. ak li mu def. fayantoo sax fayantoo. après fan lay mujje mhm. mais bu la rombatee am nu mu la ñaawalee sax nga dal ci kaw nga ci kawam waaw. boo yoree paaka jam ko. Mhm. boo yoree xeer sànni ko. boo yoree leneen def teg ko ko. Mhm. ndax lan parce que ci njëlbeen ba ñu ko téye woon bu ñu ko waroon téye ni ko waroon téye. wala ñu defoon ci moom yoon defoon ci moom lu mu waroon def ci moom. tey du ñëw di la woon di la romb di la ñaawal. y' a de sénégalais yoo xam ne porté nañ plainte diw ndax dafa ma yoreel xaalis wala diw ndax dafa ma def nangam et cetera nga xëy diw moom romb la di la ñaawal. daanaka Bablaye euh, fu mu nekk nii ci réforme yi euh, liñ ciy xaarandi. bëri na liñ ci war a yi tamit bëri na euh, ñi ngi wax ci situation yi waaye aussi tamit am na lu bëri loo xam te jot naa am ci wàllum justice tey nag euh, waxtaan ngi xam na yaakaar nañ ne dina yaatu bu baax a baax a baax ba ku nekk mën cee gis boppam. jërëjëf Baye Cheikh Diop euh, njëkk nag samay kàddu damay jël tuuti ci Birahim li mu njëkkee soof ci waxi Alamine Senghor ak samay wax mu nekk benn wax ci ñeenti poñ rek laa koy tënk ba ca njëkk mooy Baye Birahim Touré mi ngi koy wax léegi ci ndorteelu waxam moo di ñi nga xam ne dañuy am dëgg ci yoon waaye seen dëkk joojee duñ ko jot ndax amaana ñoo néew doole wala amuñu ay jàppale ci ay avocat ak yeneen yu ko nduru gis nga Birahim